barabu yaay xadijatu dinañ jaar so dinañ jëm jabalu nuur laa bëgg wax bi nga xam ne bi la waxee gi tàmbalee fa jógee dinañ jaar ci barabu yaay xadijatu soo nga dem ci masjidu ndey aïchatu radiallahu taala anha wa an il jamia mi nag mooy place bi ujaaji di ëpp lu nekk ci aj juróom-ñetteelu fanu tabaski fa la ñuy fanaan buñ xëyee dem Arafa ba guddi ñu ñëw Musdalifa fanaan fa bu ñu xëyee delluwaat Minan bésu tabaski gi ci lañuy ñuy sànni jamratul aqabati ñoo na ci xadis ne yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam bi ko sama borom digalee mu rendi doomam Ismaayila ba mu waratee moo ndigal la d'accord na ca doom ji d'accord ci ba mu ñëwee ba ci jamratul aqaba seytaane daf ko feeñu bëgg ko dëddaleeg li ko borom moom digal ak mu toll yow doom ni mu neexee li nga dund yëpp mënoo am doom gént rek tax nga bëgg a rey sa doom man de mosuma gis ku dofee nii xam nga bu ko doon wax nitu kese kese mën naa am kooku déglu ko waaye ku yàlla yootal seytaane du la mën a jax-jaxal ñu ne sànni ko nag ay doj moom dëtt maanaam Ibrahima sànni seytaane ay doj ba seytaane daw bàyyi wut ko ba ci ñetteelu jamra bi Ibrahima continué di ko sànni ca la arrêté moo tax jamaraat yooyu ñuy sànni ci bésu tabaski bi suñ maam Ibrahima alayhi salaam lañ ciy roy mooy suñu mooy suñu patriarche mooy suñu mooy suñ moom patronné suñ diine ci wax na yonentu sallallahu alayhi wa sallam ànd ak yonentu nag mu gën Ibrahima buuf waaye wax gannaaw yonentu yàlla Muhammad nag Seydina Ibrahima wa afdalul xalqi jamiican Ahmadu wa ba'dahul Xaliilu nicma sayyidu loolu la borom asalul masaalik wax ki gën ci li yàlla bind ñëpp laa wax nit ak malaaka ak jinne yonent yàlla Muhammad gannaaw ga nag alxaliil muy xaritu yàlla ba kii Ibrahima alayhi salaam yàlla wax na yonentu ne ko. nga topp yoonu Ibrahim lu tax loolu mi ngi jàngal à travers yonent bi ne roy mënta ñàkk ku bëgg a dem sa bopp boo moytul daa bi ci kàmb yonent bi gën a baax yàlla ne ko yonent yi la fi jiitu roy leen mooy ñun ñi nga xam ne duñ dara bon bu fekkee yonent bi la yàlla booleel nuñ ko war a def roy minan dañ ko ko tuddee minan danañ ko tuddee mana am nañu sax ñoo xam ne danañuy wax muna surtout waa ndakaaru yooyu yëpp <coughs> jublu ci barab bi nga xam ne fi la ñuy nekk ci bésu juróom-ñetteelu aj euh, tabaski bi gis ngeen xayma yi ngeen di gis ci la ujaa ji di nekk waaw nekk fa fukkeel bi buñ fi jógee ci bésu fukkeel bi dem Makka def tawaaful ifaada waaye buñ defee tawaaful ifaada dañuy dellu si waat Minaan fi la ñuy fanaan nekk bi fukkeel ak bésu fukkeel beeg ñaar sànni ji jamra bésu fukkeel beeg ñett sànni bi juróom-ñaari jamra rek la ñuy ay bésu fukkeel beeg ñaar ak maanaam bésu fukkeel beeg benn bésu fukkeel beeg ñett bés bu nekk da nga sànni juróom-ñaari jamra maanaam ñetti jamra bu ca nekk juróom-ñaari yoon trois fois sept vingt et un fois trois soixante trois ñu dund yàlla Muhammad yàlla nag nit ku yàkkamti nag maanaam ki gaawee deful ñetti fan yi def ñaari fan nee na falaa isma alay bàkkaar newu ci li ma nit taxaa di dem ragal ko lal <coughs> moo tax ñu bari ñaari fan dañuy def mi nan tabaski ay bésu retrait ay bésu xalaat ay bésu zikkar ay bésu ñaan ay bésu dellu ci borom bi tabaraka wa taala te ay bési feet yonentu nee na bési lekk la ak naan ak tudd yàlla muy ayaamu tashriq yooyu yàlla tudd ci alquran fii lañu fekk ujaay a ci minan yàlla wax na ne nañ ko tudd ci bés yiñ xam wax na ne nañ ko tuddee ci bés yiñ lim wa azkurullaha fi ayaamin maadudaat bés yooyu ñu lim nag mooy bés yi nga xam ne ñoom la ñuy nekk euh, minan di fi wéetal borom bi tabaraka wa taala diggante minan ak musdalifa xur woowu ñu alage woon abraham moo ca dox ma leen ko waxee woon sànq nu nu xur ne moom foog ñu am bic ak feuille commencé nag di def dars bi classe boo xam ne est-ce koy bind hmm? mooy bat batin muhassar wala waadi muhassar fa la yàlla alage woon abrahatu ak armem ba minan nag booy xool espace bi wala super mi ngi koy superficie dana dem ci sept virgule quatre-vingt-deux kilomètres waaye nag dafa am ay toj yoo xam ne gis ngeen ko jële ngeen gis yoo xam ne dafay tax yooyu même su ca bokkee du luñ mën a jëfandikoo maanaam li ñu mën a jëfandikoo ci sept virgule quatre-vingt-deux kilomètres yi mooy soixante et un pour cent pour cent yëpp ay doj la kon loolu mooy kii bi te doj yi di ngay gis doj yoo xam ne dafay gudd ba am cinq cent mètres ci kaw satxul waat yi ci kaw ceebu xuur yi barab toll fii di ñaan sama borom niñ ko waxee woon sànq ci Muzdalifa yàlla nañ fi yàlla yàgg a dajale waaw tant yi ngeen di gis bu ngeen gisee tant yi am na yu jege am na yu sori léeg-léeg ngay gis package yu aj yi di di gën a cherante ñaareel minan jey tax ndax léeg-léeg da nga nekk koo xam ne ay kilomètres ngay dox pour mën a dem ci jamaraati waaye di nga nekk foo xam ne da ngay génn rek dugg ci jamaraati loolu mooy waral yi di cher yi di yomb gannaaw euh, coté hôtel yi loolu yi dana ci prix yi yal na yàlla daal yombalal ñëpp bañ dikk nañ dikk rek la ma ndaw sa waxoon ba mu daanoo ci ah sama xarit ba suñu aj gële 2015 xam nga 2016 xajarul uswat ma yëkkati ko fekk xëm na ba dañoo mujj hôpital lañ mujj am yeewoon nag su ma ko gisee rek di ko tooñ mu ne ma waaye fóon naa ko de mu ne ko fóon nga ko kay kon nag ñu ni li am solo rek mooy nañ fi ñëw yal na yàlla dimbale ñu ñu yàgg fee ñëw yàlla te mu nangul ñu te xéewal yi fi jaar yëpp yonent yi yëpp aj si fi ba ci yonent sallallahu alayhi wa sallam awliyaaw yi yëpp aj si fi barke yooyu yëpp yàlla na ko yàlla wàccee ci ñun ak suñ njaboot barke yonent bi sallallahu alayhi wa